Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 9 septembre suñ fa jógee dañ dem ci enquête bi nga xamante ne tey kii di Mamadou Guèye nekkoon fi directeur au domaine ak Abdoulaye Seydou Sow nekkoon fi ministre de l'urbanisme ñom dal dañ leen interdire ñu dal di quitter li nga xamante dal manam moy territoire bi ginnaw nak bi nga xamante ni parquet mo dal di transmettre plusieurs rapports jëmele ko dal ci ay enquêtes yo xamante dafa activer li nga xamante moy section de recherche divulgation des investigations criminelles di dig ñu spécialisé wu jëmele ko ci ay enquêtes financières suñu sukkandikoo nak ci journal bi di Libération ay mesures la yo xamante ni c'est conservé conservatoire jëmale ko d'Al ci prise en compte li nga une trentaine de personnalités yoo xamante ni dañu nekkoon ci régime Macky Sall parmi ñi nga xamante ne concerné leen muy Mamadou Gueye di ancien directeur bu domaine moom la ñu bloqué foofa ci aéroport euh, Blaise Diagne ginnaaw kii nga xamante ne ancien ministre Abdoulaye Seydou Sow moom dañ ko empêché mu quitter réew mi ginnaaw bi nga fonds ne dafa équipe nationale bu football bu Sénégal vu que dafa bokk ci fédération sénégalaise de football pour que seen match bi nga xamante ne mooy am foofa ca Malawi tey diggante ak Burundi moom mii di Abdoulaye Seydou Sow ak Mamadou Gueye dañ leen interdire génn li nga xamante ni mooy réew mi. <laughs>